Mm-hmm. nee na ñun ay jullit lañ. Mm-hmm. avant tout. waaw Modou Lo jullit la. Mm-hmm. Modou Lo gëm na ne ñaan am na. mais Modou dund na yu bëree bëri ci préparation combat am. loolu benn du ñaar loo xam ne. xam na ne lii bokkul ci làmbam. loo gis lu ne ci àdduna nit ki looy gën di dem ci àdduna gën a yeewu di gën a doon ca métier bi nga ciy gën a doon am. expérience expérience. parce que bés liggéey bi mu nekk nii. lu muy gën di dem di ci gën a gis ay bunt xam li ko ci jariñ li ko nga jël ko teg ko nee muudu mm-hmm. moo daan takk moo dem ba takk arrangé tu ko mu jël ko teg ko nële mm-hmm. mais néew leen dama di ñaan parce que xam ne ne julli la ca ñaan am na te day ñaan muudu balaa ar suuf la sax mi ngi ñaan yàlla suñu borom bi dëgg la wala déet bu ko mu toon ne ñaan am na kon ndax dina ñaan mm-hmm. mais doomu jullit la li mu war a def ci làmb da koy def ñun li ñu war a def kenn ku nekk ba ñu lu la war a def nga def ko ndax dégg nga nit nag dafa am foo xamante ni li ñuy wax pas-pasu doomu aadama pas-pas hmm. dafa foor pas-pasu doomu aadama kenn du ci dugg c'est important dafa am pas-pasu boppam boo xam ne da nekk hmm. ñun ñu am suñu pas-pas hmm. xeebaluñu ko xeebaluñu ko luñ nekk liggéey moo ñuy boole ñuy ànd li ñu war a def ñu ngi koy def te xeebuñu ci moom li mu war a defit ñu ngi ciy nekk te dañ ciy ànd ak moom xaaroo ndax dégg nga baax mu laax nii li mu war li war ci làmb duñ ci bàyyi benn détail moom li ko war moom it du ci bàyyi benn détail li mu war a def lépp mu ngi koy def Modou lenn moo changé ci moom. Hmm. mooy takkaay yi ngeen di wax nii. takkaay yu bëri. moo changé ci moom. Hmm. mooy bu mais lu mu doon sangoo sangoo sangoo tuggoo quoi. waaw sangoo sangoo ah mais mun na sangoo muslaay muslaay parce que ba bi waaw a butéel ñu ne butéel bi Fatia

comme que da ma bàyyi may développé bu ngeen ma daggee. Mm-hmm. waaw da ngay réer waaw mun naa dem ci beneen facette boo xamante ni bokkut ak li nga xamante moom laa dee leer. Mm-hmm. parce que da ngeen laaj. Mm-hmm. dama ne leen li changé ci moom mooy takkaay bi. mi ngi sangu mais du lépp lay sangoo. sangu bi changé na waaw xaar leen tuuti ma dama la bëgg laaj waaw changé na. parce que am na lu muy laal ak lu mu dul laal. parce que wax naa leen ci biir wax na leen. daan na jël xaalisam di ko def ci loo xamante ni. di ko jox ay nit. kenn ku nekk ko laal xaati bi ma ñëw tuuti kenn ku ci nekk yaa ngi dégg <laughs> bëri na ci ñoo xam ne xam ne amaana tey Modou Modou li mu doon investir. ci mm-hmm. ay combat mm-hmm. bu démb doon tey wax na dëgg du ko investir parce que bëri na ci xam ne dafa doon nit koo xam ne nitu sutura la du wax. Mm-hmm. mais bëri na loo xam ne dund na ko ci ay lambam. bëri na ci xaalis yoo xam ne daan na jënd ñu ne ci préparation lañ koy def te ko ci def. est-ce que yaa ma dégg muy looy gën a am expérience. ci li nga xam ne moom la nekk. mu dem nag ba am pas-pas bu mu nekk gis nga nit Sénégal benn affaire laa bëgg ñu xam nit dañ koy nangoon li nga xam ne moom la nekk ay Modou ay Balla Gaye yi dañoo dépassé sax foo xamante ni mystique daf leen war a sonal parce que seen yaram daf cee yàgg seen yaram da cee sax seen yaram da cee sonn yàgg nañoo dox lu ne dem fu ne heure bu ne lu ne ñu dund ko presque vingt ans est-ce que wax la mais dama ne dafa am loo xamante nii dafa am ñum jik ak ñum jigu am na ñoo xam ne yàlla si borom bi moo leen may duñ takk duñ naan duñ sangu duñ ñaanlu chaque jour seen mbir di gën a baax am ñoo xamante ni feeg laaluñu dara jàpp nañ ne dara du baax te buñ ko laalu du baax. Mhm. parce que gëm-gëm la. Mhm. gis nga nit ñaan sax boo ko gëmul du la jariñ ku mën a doon ci àdduna loo gëm mu jariñ la loo gëmu doo ko jariñ Moodu néewu leen dafa weddi ñaan parce que xam na ne ñaan am na. Mhm. Moodu histoire yonent yëpp. njabar njabar ak yëpp am waaw histoire yonent yëpp mun na la ko mun na la ko mun na la ko tegal. mais dafa am lu ko diine mayatut. Ah, très important. est-ce que bi jox na ko solution xaaral ma ñëw tuuti xaaral ma ñëw tuuti dafa am. loo xam ne dama lay bëgg di la buruxal ay questions dafa am loo xamante ni moom dafa am loo xam ne moom. maa ngi am jàngam <laughs> dafa am loo xam ne am jàngam dafaa yegg. Hmm. mooy Moodu gëstu na ci alxuraan du bëree bare te alxuraan loo ko gën a jege gën a ragal yàlla xaw ma ndax yéen a dégg wala déet bu baax alxuraan loo koy gëstu di gën ragal yàlla looy gën a gëstu alxuraan mm-hmm. di bàyyi yenn yi muy gën a dugg sa xol bi ngay gën a ragal yàlla ndax ngay bàyyi yenn yi di def yeneen alxuraan du waxi ma sàmba du waxi ma demba yi waxi yàlla suñu borom bi la mm-hmm. te Moodu téléphone am léegi du ci déglu amul ku ciy déglu loolu alxuraanul karim mais foofu aussi li may beneen bi ci topp mooy xaar leen ma bi ci topp mooy dund googu mu koy dund mu yegg ci moom te wax naa leen sànq ne la gis nga xeetu ñaan yëpp <laughs> ba ci muy sunguf muy reen lu mu a doon njabar gu mu mën a doon ak lu mu mën di doon hmm. boo demee ci alxuraan a a fànq na bëri na sëriñu ñaankat ni tey hmm. ci alxuraan hmm. bëri na nga taxaw jàng ko ay aay yoo xam ne nga taxaw jàng ko njabar du la jàpp est-ce que loo mën a gis ci àdduna loo ni doomu aadama mooy dem gëstu ko di ko def muy sotti asuma li nga xam ne. yàlla ko wàcce moo créé solution bi. Ah, mais léegi nag léegi nag li li ñu war a comprendre mooy. Hmm. buñ gis ne Modou. takkatut sangatut defut lii defut laa ñu ne Modou Lo hmm. wala Modou Lo defut lii wala Modou Lo defut laa. Hmm. nañ ko bàyyi gëm-gëm. yaa ngi dégg gëm-gëmam bi koy bàyyee mooy Modou Lo ñoom doon àndal ba léegi ñoom lay àndal. ña ko doon jàppale ba léegi ñoo koy jàppale. am saa yu da nga leeral da am lu nga leeral. mais dafa am loo xam ne fa nga xam ko. ñu taxuñu fii ñu ne ñoo weddi mystique mystique ñun weddiwuñu mystique. mais ni ko mbër yi gëmee. mais seen muudu ñu ko bëgg a teg première position. waaw mystique ça existe. <laughs> waaw lu am la mais mystique. Hmm. day day day bokk na guddi yi ñu toll. mbër yu bëri yu perte seen lamb mystique moo leen perte loo seen. et léegi dafay abusé mais mbër yi ci mbër yi ci gagné seen lamb balaa ñuy toog mystique daf leen may balaa ñuy génn xam nga lu tax la preuve mooy leen. waaw xaaral la preuve mooy leen. la preuve mooy leen. waaw man si direct laay waxee. Hmm. mbër yi moom mës a ñaanal ci lamb jëpp hmm. ci làmb laa la wax. Mm. ñu daanu ak ñu daan. Mm. bala ñoo dem làmb ji dinaa la wax ne la boo defee lii. Mm. làmb ji fii la tey. boo taxee fii boo defee lii ak lii boo jëndee sarax bi ak nangam nangam làmb ji côté bii lay leere ci yow jël bi nii lay demee. saa Touba soo dëgëree bopp. soo demee bu lamb jeexee yow yaay waxaatal sa bopp ne maa juum. mais saa tuba saa tuba loolu am na loolu xaaral xaaral mbës. am na li ci mën a waxal am na li ci mën a waxal mais dama a ñaan benn a waxal xam nga tey xam a koy waxaat parce que yaa taxaw te nit du taxaw nga koy fenal. Mm-hmm. te jullit nga. lambu Arafat Zarko bi ñu ne suba la combat ma ak yow dañoo dajee esat mm-hmm. ma wax la ci lu dul dañ. Mm-hmm. ba làmb jeexee mu demee waat noonu. dëgg la wala dëgg. non dafa nànk dafa nànk mu ñëw waxuma ci lu dul dañ daf ma dama ko gis dafa ute. peut-être beneen làmb la ma am lu ma wax. Hmm. mais Ada Fass Zarko. Hmm. dañu ñëw taxaw. Hmm. ñuy defar suñu ay bâche. moom gisuma man maa ko gis. mu am fu mu taxaw ci géew bi yàgg fa. mu taxaw loolu ma koy seetlu ci làmb ji mu taxaw fa yàgg fa lool def fa benn dix minutes. comme damay seetlu ëllëg sa ma gis ko mu ngemb Zarko. Zarko fu mu taxaw noonu exactement foofu na Zarko daanee Ada làmb ji jeex ma fekk ko ci biti. kott ko tooñ ko ne ko man li ma jaaxal fi nga taxawoon démb yàgg fa lool foofu la Zarko daanee Ada Fass première la ci léegi dañuy débat dañuy débat dañuy waxtaan waaw problème bi xam nga li ma bëgg léegi bi bi yooyu jàllee waaw non def nañ ay live mën a yow waaw non d'accord waxtaan nañu tam non d'accord naa man weddi wu ma mystique mais dama bëgg ñu waxtaane ko sëñ bi maa ngi ñëw ci yow sëñ Moodu ci kanam tuuti dina am lu ñu waxtaanee mhm. mais li ma bëgg ci Sa Touba mooy ginnaaw bi nga xamante ni Modou Lo def na la plus grande révolution de l'histoire de la lutte sénégalaise. ci wàllum gàllaaj neexuta woon gëm. Modou Lo def la plus grande révolution de la lutte sénégalaise mu am ñuy continuer ne am na lu mu doon def muy fës léegi defatu ko làmb ja këram la koy def mooy wàllum yenn tey yenn mbir yi nga xam mbër da ko doon def ñu koy gis. parce que ñun bu ñu nee mystique sëñ bi. Mhm. waxuñu Modou Lo tàllal loxoom xam nga mystique tey boo ko demee wax ko tubaab bi. Mhm. Modou lu muy def ba léegi tubaab bi da koy considéré comme étant du mystique. Mhm. mooy Modou lu muy xëppoo noonu ndox yooyu muy xëppoo. sam-sam la xaw ma lan la. wala ay aaya yu mu ci tari. boo demee ci tubaab bi day ne saa si mystique. mais ñun la euh, Boucar boo defee sport i mystique mm. nga def leket ak ak béjjën mm. ñun li ñuy considéré comme mystique ñun sénégalais yi mm. mooy yenn yoo xamante ne mbirum yoo xam ne ay béjjën la ay nañ yuy def yi ak yële léegi ma dégg ay sénégalais yu naan Modou Lo defatu ko làmb ja mais këram la koy def moo tax ma laaj saa Touba parce que man sama gëm-gëm man mooy Modou Lo lu muy def làmb ja loolu lay def kër mu amul lu ci changé. léegi ma bëgg a saa Touba leeral ñu. est-ce que am na li nga loo xamante ne mër mi ci boppam da koy def ci ruq mais bu ñëwee ci kanamu nit ñi. nit ñi taxaw mu bañ koo def. kon su Ndiouga nee na la lutte et le mystique sont. mais bàyyi saa Touba toog sama question bu <laughs> foofu dama la fi indi leeral tuuti. nga Modou ni muy dundee bu ñëwee ci làmb ja. waaw même bu ñu nekkee kër ga. noonu lañuy ñuy dundee. waaw kon yow leeral nga ñëpp yow lan nga fi doon wax sànq. waaw xaaral tuuti ma ñëw Sénégal yi téye xaaral tuuti ma ñëw xaaral tuuti ma ñëw rek. Hmm. dama ma laaj dama lay pose dama lay tontu ci question boobu. Modou hmm. ni muy sangoo ci stade. Hmm. noonu lay sangoo këram. ni mu toogee di waxtaan ci cumikaayam. ak gars yi ni muy nekkee di soulagé wu. noonu lay nekkee këram ba heure takk ngeen moom jot. dafa am heure boo xam ne nag man du ma fa fekk. su ma waxee la fay xew. damay juum. parce que chaque man chaque combat Modou Lo man mun naa ne bokk naa ci ñiy jiitu stade. ndax 15 heures lu ci tegu. Mhm. sama oto départ na wuti. dara ump la saa. saa xam nga lépp. xaaral tuuti mhm. xaaral tuuti ma wax la rek xaaral tuuti ma man daal li ma leen wax rek. parce que mhm. doomu aadama bëgguma ñu ciy sori. mais ci wàllu làmb laa wax ci wàllu làmb. amul benn mbër bu ciy takk ngem. parce que waxuma la sax waxuma la sax ay mbër mais góor ku mën a doon ci àdduna. te amoo say ñaani waajur saa Touba ñaanal la. sëñ Fay ñaanal la ku mën a doon ci àdduna. da sonal sa bopp. da ngay fexe say waajur seen xol sedd ci yow avant tout. Mm. nga jéem a xool noo leen di. yaa yaa nga ko wax de noonu. Mm. yaa ngi dégg. Mm. gis nga man dama koy faral di wax dama naan kuy jëflanteeg man. boo waree yëkkati cent mille francs jox ko saa Touba wala nga yëkkati mille francs jox ko saa Touba. fexeel avant nga koy jox saa Touba na nga am loo yëkkati jox ko sa yaay ba pare. wala ko jox ko sa papa. c'est ndax wërsëg nday la barke Baye. mais bu ko naa ñaan benn question pour sëñ Modou. waaw parce que Sa Touba tey dafa xam nga tey problème mooy Sa Touba. Mhm. man des dama leen di mere yéen reporter yëpp dama leen sànni xel vous avez Sa Touba depuis 6 mois mais li ngeen ko war a laaj laajoon leen ko mhm. waaw moo tax tey il ma yëngal ko sama grand nag sama.